di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy di suivre Sport Life 221 dikkati ànd ak yéen dëgtal leen les brèves de l'actualité sportive Rodri Ballon d'Or 2024 à la surprise générale donc comme ni ngeen ko gisee Rodri moom mooy Ballon d'Or France Football 2024 euh, donc mu nekkoon cérémonie bi nga xamante ne mi ngi amee woon ca théâtre du Châtelet à Paris le milieu de terrain espagnol gannaaw ba mu effectué une magnifique saison avec son club waaye tamit avec la sélection espagnole bi nga xamante ne ñoom ñoo gagné l'Euro 2024 moom moo jël euh, bile raaya alors que ñu bëri foogoon nekk Vinicius Junior moom moo nekkoon le grand favori pour cette 68e édition d'or du Ballon d'or Finalement, Rodri moom la ñu tabb meilleur footballeur de la planète sur la saison 2023-2024 mu nekk itam récompense boo xamante ne mérité na ko gannaaw ba mu defee liggéey bu am selo waaye tamit nekk l'une des pièces centrales de l'équipe de Pep Guardiola. Donc il s'agit du premier ballon d'or bi nga xamante ne Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi bokk ñu ci lii tamit day marquer un véritable tournant après domination bi nga xamante ne ñaari extraterrestres du yi. jotoon nañ ko amal le joueur de Manchester City ñëw en béquille à la cérémonie gannaaw ba mu amee euh, rupture du ligament euh, croisé ak émotion xamante ne moom mooy euh, George Weah Ballon d'Or 1995 moom moo ko jox bi les trophées tant convoité par tous les footballeurs donc Rodri devient le premier milieu de terrain depuis Luka Modric 2018 à obtenir li nga xamante ne moom mooy le Ballon d'Or